dalleen ak jàmm jàmm xewul ci réewum Niger coow la jeexagul coup d'état moo fa am l'observateur ne Sénégal waajal nay takk deram ngir tàbbi ca xeex ba journal Futur Média bi ne la tax ñu wax ko moo di ne tey jii ci altine ji la l'armée bi di dajaley takk deram ya nar a utali Niger le quotidien dëgg la keroog ba ministre affaires étrangères di Aïssata Tall Sall waxee ne bu CEDEAO noppee ngir lijjanti la xew ci réewum Niger Sénégal seeni takk der du ca des gannaaw journal bi ne loolee du waxe kese itam nguur gi fawu ci tey ji lañuy dajale ca dirigeant bi ñu fa bëgg a yabal CEDEAO li ñu bëgg moo di militaire delloo nguur ga Mohamed Bazoum ma fa nekkoon lu ko mooy dinañ intervenir militairement loolu di tekk ne danoo bëgg a lijjanti mbir mi cib guerre te réewum Sénégal seeni takk der naru cee des gannaaw gannaaw loolee itam Barça wala Barsàq gi jeexagul libération yéen kaay ne diggante weeru avril ak gi lu ëpp ñetti junniy sénégalais suux nañ ci waaxi Daxla ga ca Maroc te ñoom ñëpp nag li ñu bëggoon moo di utali réewum Espagne bés bi ñu bari ci ñoom moo di ne jaaf waaye bunt bu ñu fëgg dafay dëgër réewum France nag la ñu wax ne moo ci gën a dëgër lii tax ndaw yu bare doon xool yoonu géej gi waa ambassade bu France ne ñi fay déposé ngir ami visa moo bari te tam bari na ci ñoo xam ne fa ñuy jaar dara jaaru ci yoon Boubacar Seye bu Horizon Sans Frontières ne loole rek doy na sëkk ngir ñoom waa Europe ñu xoolaat seen taxawaay waa Sénégal gi rëcce ci njombe ci aljuma bi ñu weesu moom la source a xëy di waxaat journal bi ne projet attentat la defkati ñaawteef bëggoon a amal ci Dakar waaye takk yi ñoo ko ndax fi mu toll waa ji ni wax ninki nankaa moom la ñuy wër ndax moom la ñu fa mu nekkandool ca ba fukki fan ak juróom a ngi nii ñu sóobu ci grève xiifal lii tax journal Front de Terre bi dinu xibaar ne tàmbali fi mu toll moo di Cheikh Bara Ndiaye tax Cheikh Thioro Mbacké bu Pastef di ñaawlu li nu lànkal ak njabootam xool ko Sud Quotidien ñàkk a sàmmoo ak ak yelleefu doom doomu aadama moom la ay kuréel joxoñ baaraamu tuuma ne lu jiin njaaga Ismaïla Madior Fall di jëwriñ ji ñu dénk wàllum yoon ak Antoine Félix Diome bu intérieur ñooy njaak ñoom ñaari itam lan ca joxoñ baaraamu tuuma Khalifa Ababacar Sall mi waa yeewi askan wi tuumaal ba tax ñu ni génne nan taxaw ca coalition ba moo xëy di tontu ci Vox Populi Khalifa Ababacar Sall ne mbindeef mënu ko génne ci biir coalition bi amul lenn lu mu def lu tax ñu ko fay génne moom moo jiite ñi doon xaatim carti coalition ba te itam amul fenn foo la leen tax di tëbakat daal moo di dialogue ba mu demoon te njiitu réew mi bu woote waatoon dialogue tey moom Khalifa Babacar Sall dina dem wuy ji tax li mu gëm moo di ne am réew dañ koy waxtaane Khalifa Babacar Sall tëj wax ja ne bés bu ñu ko taxee wax ba mu wax yuuxu dina jib fun ko foogewul li ñépp fook moo di moom xalifa ba Babacar Sall ak Karim Meïssa Wade seeni mbir leer na ba tax dina mën a bokk ci élection présidentielle yu atum 2024 le quotidien ñaari cas yi am nañ beneen cas war a lijjanti muy quitus fiscal les économies booba fekk na Karim moom di waaji ñibbisi yi ba ay ñoñam lancé lu ñu duppee opération ñibbisi ngir waajal seenub candidat kan moo nar a nekk candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar l'observateur ne am na yeneen yeneeni waxtaan yu bees yu am ci seen biir susu a xëy dinu faram fàccee la ca bees ba ñuy xibaar ne Mahmoud Saleh ak Mor ngoom ñoo jiite waxtaan wa le témoin ne Aly Ngouille njaay moom nee na candidat à la candidature la ci Benno Bokk Yaakaar te noppiwul sax ngir dellu ca gannaaw tribune ne li mu jàpp moo di moom ki war a wuutu président Macky fi mu toll leneen ci diggante Amadou Ba Aly Ngouille Ndiaye ak Abdoulaye Diouf Sarr journal a la fa def Direct News ne monte nag sport moo ko fa yóbbu woon sport itam moo yóbbu Sadio Mané ca Arabie Saoudite stade yéenekaay ne Sadio Mané am na fukk ak ñetti trophée ci carrière am journal Record ne dafa tàmbali ci Al rek dégg daali kan ci diggante Modou Xarañ Lo ak Ama Baldé wala Tapha ak Eumeu Sène